salaamaaleykum mbokki Sénégal Moustapha Mbacké Lo la junior euh, di opérateur économique euh, nekkit euh, ndaw loo xamante ne ni ci gox bi ñu dëkkee ci Touba ñu ngi fay def suñu kéemtalaay kàttan ci lu ñu man pour développement wu Touba waaw. waaw taxaw seetlu bi ma ci am moom la ci moom la ci sénégalais yu baree baree bari am ndax ñu ngi suivre actualité waaye comme yàlla daf ñu natt. ñu jël suñu réew dénk ko benn groupe bu bandi benn groupe bu bandi parce que maa ngi alerté depuis 2013 ndax ci groupe boobu ñun lañu bokkoon parce que jeunesse bi xeexoon pour indi Macky Sall au pouvoir ci lañ bokk jóge ci Ablaye Wade dem rejoindre ko ci euh, euh, janvier deux mille euh, deux mille dix-neuf bi ñu ko convoqué ci affaire blanchiment d'argent dañ ko tuumaloon. man ci ndaw ñu déparé woon suma kër dem ci fan résidence fi mu dëkk ànd ak cortège bi matuñu woon cinquante jeunes bi ñuy wuy ji convocation bi dem central ne ko duñ la fi bàyyi parce que jàpp nañ la li ñu lay tudd bu tudd tey dañ la ciy tuumaal euh, kooku tey moo ñëw ba ñu indi ko au pouvoir ndax euh, ñu fekke woon histoire xam nañ ne ab buqat la woon tey ki yor réew mi ku wax mu dóor xët nga tëdd wala mu jàpp yóbbu ci kaso bi ku ne xam na ne bi mu soxlaa réew mi buqat la woon nit la koo xamante ne nii Ablaye Wade ca mbaax moo ko créé moo ko formé indi ko bi mu demee ñu tudd ko ci loolu ndaw ñu bëree bari keroog man mën naa li histoire bi lan moo xewoon central lan moo xewoon ci convocation boobu noonu keroog ñu jële ko këram ñu jële ko ci ci ci ci ci convocation boobu indiwaat ko këram ci guddi gi la démissionné ñu pousse ko di ko pousse di ko pousse di ko pousse ba indi ko au pouvoir ñu mu ñu jàppoon ne tey euh, am nañu président boo xamante ne ndaw la dina indi yërmande dina indi négociation dina indi waxtaan waaye ku ko fekk fu boo ko gisee muy dox mi ngi mu ngi guuxi leex mu ngi def ay mbir yoo xamante ne nii jàpp na ne adversaire politique waru koo am tey loolu moo indi mbir mi fii ndax ku ne xam na ne Ousmane Sonko tey mooy le chef de l'opposition ndax ki fi nekkoon te jiitu woon ko ci élection yi ñu génn jaay na ngoram tuxu ji na jënd nañ ko tey ma nga ca gaañ boobu noonu kenn lañ dese muy Ousmane Sonko mais fii ak 2024 Ousmane Sonko ku nekk xam na ne ñi yor nguur gi yor régime bi tey jii duñ ko bàyyi mu libre waxuñu ay ay ay accusation de de de viol mais jàpp naa ne danañ ko tudd ci leneen loo xamante ni du loolu pourtant euh, viol suñ koy tudd yaakaar naa ci ñu nekk ci au pouvoir bi xam na seen bureau yi tey jii transmettre nañ ko ay auberge loolu moo am tey ñi nga xamante ni ay ministre lañ ak i DG ñu ngi jël ay xale di leen jiyale ci seen biir bureau yi nañ ma convoqué mais indi ci ay preuve ñu ngi jël ay appartement luyee ko defar defar ko ba mu moderne guddee bëccëg suba ngoon ñu fay fat ay xale yu jigéen pourtant loolu doo mës a dégg ñu convaincre ci ab ministre barki dem ci benn télé am na benn kilifa gu mag bu wootee ne sama jabar benn ministre moo ko doon def naka sa du noonu mu am ci ay preuve est ce que loolu suñu ne ko est ce que jéem nañ a dem def enquête boobu noonu pour jàpp ministre boobu doo ko dégg mais Ousmane Sonko moom comme dafa soxla réew mi yàlla def tey jii nii mu nekk ki nga xamante ni mooy chef de l' opposition loolu la yàlla dogal ci moom lépp luñ mën a def pour gàllankoor ko lépp mu mën a def pour taasal deram lépp mu mën a def pour jaxase ko ak sénégalais yi dinañ ko def waaye alhamdulilah depuis combat bi tàmbali gis nañ ne Ousmane wéetu ci te gëm naa ne du ci wéet tey dina ci ànd ak ndaw ñi nga xamante ni ngor dëgg. jom fulla fayda ak fit mu ngi ci ñoom dinañ ànd ak Ousmane Ngo euh, Ousmane euh, Sonko ci combat boobu noonu du ci wéet kon yaakaar naa débat boobu ku ne mi ngi daw ci plateau ku ne mi ngi wax ku ne mi ngi commentaire mais lenn rek la xaar justice def ko mooy mu xool digganteem ak yàlla parce que ay ñoom ay jullit lañ su fekkente ne ñu ngi leen di tuumaal ne état bi fi nekk da leen a jënd def ci poosam tey jii dafa dem parce que yaakaar naa suñ demee ak fi réew mi toll bakkan yu bari di rot ñuy jaale sénégalais yi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen i waajur wala seen am di jàmm fi réew mi toll chaque jour bakkan yi di rot jàpp naa ne waroon naa tal waroon nañoo tal leneen lu dul waxu ñàkk fayda waxu ñàkk fayda mooy lan mooy waxu viol bii nii nga xamante ne ni ñi ngi koy toppee Ousmane Sonko fan yi guddee bëccëg subaa ngoon Ousmane Sonko viol Ousmane Sonko viol jàpp naa ne war nañoo dépassé niveau boobu noonu. ndëgg sërëx mooy li am mooy li wér mooy li wér wóor dañ ma ne lu gën a garaaw viol bii mu ngi fi xam nga ñi nga xam ne dañ leen a jël def leen ay directeur def leen ay ministre jël suñu alal di leen ko di leen ko fay ñuy jël ay avion jël suñu alal di ci yekkataan ay xale yu jigéen guddeeg bëccëg suba ngoon musta musta jib te du jib loolu chaque jour mu am fii chaque jour ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor nguur gi suñu alal la ñuy jëlee nekk ci ak xale yu jigéen yi ci hôtel yi guddeeg bëccëg suba ngoon kon lii jàpp naa ne tey suñ demee ba xool ndax Ousmane jëm nañ koo jaar fu nekk jàllut parce que jàpp naa ne lam nekkoon ak fam nekkoon ay loxoom set na fa kon sacrifié nañ ko wala sànq nañ ko yàgg na waaye comme fa mu jógee amul lenn luñ ko mën a toppee coup rek lañ mën a def coup bi lan la ñuy def mooy jëm koo jàpp suñ ko jàppee dina leen coûter cher te lii maa leen koy wax li ci kanam raw li bëgg Ousmane Sonko fii ak 2024 heure bu ñu defee ñoom état du Sénégal ñoom ñu nekk ci bopp nguur gi suñ defee ay pexe ba jàpp ko dina leen coûter cher olof Ndiaye benn géwal su nekkee ci xare lu jiin feet Macky sàll jàpp naa ne askanu Sénégal ñoo ko suur askanu Sénégal ñoo doyal ci moom askanu Sénégal ñoo bëgg a tàqalikook moom ci jàmm li ko fi dasi bareetut li ko fi dese mooy lan mooy 2024 2024 suñ ci àggee ak jàmm ak salaam na ranger ay bagage am moom ak ak njabootam ak ay xaritam ak indi jàmm ñu dem bàyyee ñu suñu réew ñu xool ki ñu doy ñu teg ko ci suñu réew waaw loolu li may wax mooy li ma wax léegi rek ndaw ñi nga xam ne jom fulla fayda fit ngor mu ngi des ci ñoom man mi pare naa pour dema ah, pour rentre di 100 mètres su fekkente ne défendre euh, Ousmane Sonko heure buñ ko convoqué man dinaa wuy ji Ousmane Sonko biñ convoqué Macky Sall 19 janvier 2019 ma bokkoon ci ndaw ñu wuy ji suñ ko convoqué ci ISO ci problème bi man dinaa bokk ci ñuy wuy ji dinaa bokk ci ñi koy accompagner deux deux deux mille deux deux waaw deux mille neuf dinaa bokk ci ñi nga xamante ne ni ñoo koy accompagner kon su fekkente ne képp ku ñu xam ne yaa ngi défendre Ousmane Sonko wala yaa ngi jàppale Ousmane Sonko wala yaa ngi ànd ak moom ci xeex bi dinañ la indil ay galgal man dinaa ci bokk te bëri na ñoo xamante ne nii du jeex sénégalais yi dañoo sonn dañoo fatigué li fi ne lañ xamul. su dee mbirum wëyu mbirum banditisme mbirum sàcc mbirum viol ah mbirum pédophile soo koy wër set ko ci ñi yor nguur gi tey jii nii ñoom ñoo nekk ci loolu mais pas les oppositions loolu na leer